wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi wa akrimna bi nuuri alfahmi waftax alayna bi maxrifati alcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal caalamiin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 ñaan ko mu boole ñu taxawu defal ñu jàmme àdduna ak jàmme àllaaxira ñaan ko mu defal ñu suturas àdduna defal ñu suturas àllaaxira ñoo ngi nuyu soppee almisbaax yépp soppee almisbaax yi nekk ci réew meeg ñi nekk bitim réew ñi bàyyi xel jotaay bi fépp fuñ mën a nekk ñoo ngi leen di bége bu baax a baax a baax di bég ci ni ñuy ànde ak ñun jotaay bi di jaajëfal bu baax Oustaz Alioune mbay ak Imam Momar Seck ci fanaan mi di leen massawu coona ñaan borom bi subhaanahu wa mu fay leen ñaan ko mu defal ñu dégg ak topp ci waxtaan yu am solo yi noonu lañuy siyaare siyaaree jàngkati alxuraan yi jàngalekati alxuraan yi siyaare itam sëriñ si ak soxna yi di nuyu mbokk yi ak am di jàmm yi ñaan borom bi subhaanahu wa mu defal ñu tawféex defal ñu sutura sutura baax na lool dañ koy ñaan borom bi waaye nag di dox ci lépp loo xamante ne day tax ñu am ko ci farata yi la bokk waaye góor góorlu ba doon jaami yàlla ndax loolu moom dogal na ko ba noppi mooy def ñu wàcce ñu ci kaw suuf ñun ñëpp ñu doon ay jaamam waaye nag ku gën a nangoo doonub jaam gën a raw sa moroom nga xam ne li ñu rawantee mooy gën a nangoo doon jaamu borom bi subhaanahu wa taala boo delloo ca démb dangay gis ne tënku ci ay sart jëfandikoo ndigal bàyyi tere lu mas a jafe la te daa mel ne du yomb mukk ndax daa mel ne daa nekk ci yoon di di jafe li taxoon nit di ko gën a man loolu itam di ko gën a sori boo delloo ca démb bi démb da gis ne borom bi subhaanahu wa taala digganteem ak doomu aadama ci dégg ndigal bàyyi tere lu yàgg la léeg-léeg sax mën ngaa dem lu ko gën a sori nga jël iblis ca boppam ñàkk jëfe ndigalul borom bi subhaanahu wa taala moo ko teg li ko dal lépp nga xam ne ñàkk jëfe ndigal day yóbbu nit sax ci kéefër day yóbbu nit ci kéefër fi mu ne nit dana jëf-jëf joo xam ne moom day duñ ko wax ne ko génn nga ci diine ji waaye jëf jim jëf moom jëfi ku nekkut ci diine ji la maanaam jëf juy génnee nit ci diine la yal nañu ci yàlla musal moo tax borom bi subhaanahu wa taala ba iblis lànkee bañ a sujjóot mu tegal ko ca wa kaana minal kaafiriin iblis day bokk nag ci ñi nga xamante ne dañoo weddi ñi nga xam ne dañoo kéefër ndax al kufru mooy suul jëf fàtte teraanga yi nga séqoon nag ki nga jàkkaar lool démb mu lebal la njekk nga faye ko njekkadi kooku mooy ki nga xamante ne ni daa kéefaru daa mooy ki nga xamante ne ni dafa suul jëf dafa weddi boo dellusee ci suñu maam aadama alayhi salaam nga xam ni keroog bi ko yàlla dugalee aljanna moom ak euh, ki nga xam ne mooy xawaa daf leen a boyal ne leen àjjana lépp yéen ko moom fa kulaa minha xaytu sixtuma raqaba waaw wala taqraba haatihi shajara fa takuuna min alzaalimin mu mel ne euh, yaatal nit mënta yam foofu mënta weesu foofu liberté li ñuy wax liberté maanaam borom bi subhaanahu wa taala boyal aadama ak xawaa ci aljanna nam toll ne leen lépp lépp lépp yéen ko moom lépp lépp man daal lenn dong laa bëgg ngeen bàyyil ma ko fi bañ koo laal mooy garab gi xam nga fi mu ne ñu laal garab gi du wàññi dara yàlla du tee mu doon buur du tee muy doon buur ñi ko laalit du tax ñu doon i buur ay jaam dong la ñu doon doon ay mbindeefam yoo xam ne moo leen bind ca nam ko soobee subhaanahu wa waaye ngir jàngal nit tënku ci ndigal ak bàyyi ay tere lum la bàyyi bàyyi bàyyi ci sa liberté day am fu mu teg lu mu teg ci sa kanam nela la lii bul ko laal day am lu mu teg ci sa kanam ne lii moom bul ko laal waaye doomu aadama loolu lu jafe ci moom la day mel ne mu amoon lépp day jël bëtam lan ko tere rek ca la bëgg a àgg léeg-léeg sa doom di raam jëm ci prise courant bi nga jël fowukaay bi muy foyee jox ko mu raam romb ko nga jël téléphone bi muy fooyee bi nga yoroon jox ko mu raam romb ko nga jël ab pot jox ko mu raam romb ko nga jël bonbon jox ko mu raam romb ko moom daal yitte ji muy am rek mooy jëm ca courant ba ndax ndax tere gi nga koy tere moo tax am na sax gone yoo xam ne boo leen bàyyi woon waxoo leen bàyyil ñooy bàyyil seen bopp <laughs> nga xam ne du du jar ngay xëccoote ak ñoom loolu ñiy yar ak di seetlu nit ci aw doxalinam xam nañ ko bisub keroog mën naa ne ci la li ñu dal dal ba léegi ndax àdduna looloo ñu fi indi cosaanul ñëw fi mooy ñàkk moytandiku ay tere nga xam ne day mel ne bakkan day fippu jëm ca day mel ne bakkan day fippu e, jëmale nit ki ci li nga xamante ne dañ ko wax ne ko bul ko laal te moo ne laal ko sax mën naa am amalu ko njariñ ndax li muy tuddee njariñ ki ko teree ku gën a xam te tere gim ko ko tere moytandiku ko mooy njariñ ci moom moo tax e, nit itam mës jóg ci di am lu koy fàttali loolu mësta jóg ci di am lu koy fàttali loolu moo tax keroog bi ñu ko laalee moom aadama euh, ak soxnaam xawa borom bi subhaanahu wa mere leen day saan mere leen ñoom day tooñ nañ tooñ nañ waaye nag euh, daa mel ni borom bi subhaanahu wa taala ku bëgg di jéggale la ku bëgg di baale la ndax boo demee ci alxuraan ba mu ñu koy nettali ci wax jii rek da caa teg fa talaqa aadamu min rabbihi kalimaatin fa taaba aley borom bi subhaanahu jox aadama ay baat ndax bi aadama jaaxlee tonk yëg ne liñ ma doon tere def naa ko daan tegu na ci sama kaw nee nañ yére ya moo naaw bàyyi ko fa ba ay xobi garab la mujj jël di ko taf ci kanaw di ko di ko taf ci kawam xoolal xéewal gi yàlla defal xeetu yonent yàlla muhammad alayhi salaam nga xam ne bu doon ku def bàkkaar sa yére naaw nga xam ne ku def bàkkaar doo mën a sol yére yaramu neen ngay def <laughs> waaw ku def bàkkaar eh, da dangay da ngay wecc ak yére benn yére du nangu nga sol ko kon eh, dootu neex a nettali waaye ci suturaam fonk gum fonk doomu aadama teral gum teral eh, nit tax na mu jël beneen weneen yoon wudut woowu waaye ca aadama ak awaa moom ca aljanna àjjana xéewal ya fa nekk ña dégg ndigal ñoo ko moom xéewal ya fa nekk ku ca bëgg a xéewlu da ngay dégg ndigalul borom bi subhaanahu wa taala képp koo xam ne déggoo borom bi subhaanahu wa taala xéewal yi aljana day lànk danaan la man awmaa yow awmaa yow affaire amuñu benn rapport man ki may jëflanteel di joxanteek moom i loxo mooy ki nga xamante ne daa dégg ndigalul ki ma bind muy borom bi subhaanahu wa taala moom ma àdduna nag xéewal yi fi nekk yàlla da ko bëggut waaw bëggu ko moo tax ñépp a ci mën a jot Hmm? ñëpp ci mën a jot yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xéewali àdduna lu ñàkk solo la ci kanam borom bi subhaanahu wa taala nee na sax buñ ko màndaxe woon ak laafum yoo ñu tolloo ab yéefar du ci mos kon na na xéewali aljanna yemel ci am solo ba ñuy jubal déggal seen borom e, ñoo koy am xéewali àdduna yi boobaa noonu lay def danaan ñi tegu ci yoon rek ñoo may am waaye ginnaaw am médd la ci borom bi subhaanahu wa taala am médd moom ki am xaram def ko walaw nagam walla genn ci juru këram mu jël ko dem ba ca gannaaw kër ga ca àll ba mu sànni ko fu ngelaw li du jublu si ci kër gi nga xam ne bu koy sànni sax da koy sànni ci wet goo xam ne bu ngelaw li ngelawee xet gu naqari gi du ñëw ci kër gi <laughs> xet gu naqari gi du ñëw ci kër gi mu di ko fa romb nag gis nga médd ma lum neewi neewi neewi neewi bay nurul lu rëy moom lum xiif xiif xiif soxlawu ko soxlawu ko da koy romb waaye tan yi moom dañ ko ne siiw waaw tan yi moom dañ ko ne siiw moo tax borom bi subhaanahu wa taala bët boobu lay xool àdduna ñi nga xam ne dañoo gis yàlla gis xéewali aljanna yi it bët boobu la ñuy xool àdduna bët boobu la ñuy xool àdduna moo tax lu la waaye di eh, defal ci programme wala mu lay fàttali na la fàttali ak doylu na la fàttali ak doylu na dimbali ba nga doon koo xamante ne ku doylu nga ndax boo doylu wutit eh, li yàlla dogal mooy doo fi am lu la doy waaw doo fi am lu la doy mukk te ñàkk gee doy la te loo man di amit mu mel ne amoo dara boo doyloo nag mu mel ne jeexaloo dara te wallaahi bari na e, looy sonne ba mu jaral la sàggane sa borom sàggane lépp léeg mu jaral la këpp kees gi wala jël li ñëpp bokk wala mu jaral la wax lu du dëgg walla mu jaral la jaay sa ngor doon ab dunguru wala cogg boo moytuwul la nga cey wute aw def la wooy denc waaye li nga soxla ngir dund moom am nga ko ba noppi li nga soxla ngir dund nga xam ne dundu doomu aadama mënu koo ñàkk loolu am nga ko ba noppi waaye bakkan moo du doyal gannaaw bakkan du suur nag dalay xiirtal nag ci ngay ci ngay kër kër kër kër kër kër kër ci loo am loo xamante ne maanaam boo moytuwut danga koy denc waaw boo moytuwut ci sa denc gëla jëm te xamoo ba xam danga ko ko jariñoom déet moo tax borom bi ne woon alhaakumu takaasuru xatta zurtumul maqaabir <laughs> kallaa sawfa taalamuun thumma kallaa sawfa taalamuun kallaa law taalamuuna ilma alyaqiin la tarawunna aljaxiim summa la tarawunnaha ayna alyaqiin waaye summa la tusalunna yowma idin an naim allahu akbar waaw yéen a ngi yéen a ngi kërti kërti rek waaw ëpp lante daal yitteel na leen ba ngeen fàtte ma yàlla nee am na lu dox sama diggante yéen fàtte ngeen ma laa ilaha illallah waaw fàtte ngeen ma fàtte ngeen ne yëf yi ci man la jóge <laughs> waaw ngeen naan kër kër kër kër kër kër di buuxante di xëccoo dogu mburu rek waaw di xëccoo rek di xëccoo loo xamante ne nii fàtte ngeen ma dox na seen digganteek man waaye nag bis bu ngeen tëddee ca buntu jaat ga da ngeen xam ne euh, mbir mi jëru ko jërut woon ngeen may fàtte jërut woon ngeen may fàtte waaye nee na xéewal yi ma leen xéewal yépp ëllëg yowmal xiyaam danaa leen ko laaj xéewal yi nga am tàmbali la auditeel sa bopp fii la ma Omar ibnul Xataab doon wax waaw si bu waaw auditer leen seen bopp bala ñu leen a aussi auditer ëllëg yow mal xiyaam ndax foofu dana am audit léeg-léeg bu la ne woon eh, ki lay auditer mi ngi waaj a ñëw wala magasin bi nga yor borom a ngi waaj a ñëw ngir ngeen def eh, inventaire boo moytuwul nga def ko ci guddi gi balaa ñëw teel a calcul teel a bind yi nga mën a layal nga layal ko yi nga munta layal nga wutal koy lay <laughs> waaw ba yépp ne cocc balaa ñëw nga xamante ne dara du la bett noonu nag la jaadu nit ki def ko digganteem ak euh, boroomam subhaanahu wa taala bu ko defee doylu daa bokk ci li nga xam ne da ko ciy dimbali waaye daa bokk ci li nga xam ne ab yar la buñ daan yari nit ab yar la buñ daan yari nit di ko buux di ko di ko jañax di ko tàggat jëme ko ca nga xam ne bu xasee ba nekk ci moom mu juboo ak boppam bu xasee ba nekk ci moom mu juboo ak i mbokkam waaye tënku ci ay sart ak nosewu Euh, neex na borom bi subhaanahu wa taala lool dafa mel ne bu sañoon nit ñëpp tënku ci ay sart waaye yombu leen yombu leen moo tax ba ko aadama defee ci aljanna borom bi ne ko wàccal ci kaw suuf yaak sa jabar ñu wàcc ci kaw suuf am ñu fi ñun ñuy ay aadama yuy dox ci kaw suuf ak ay xawaa war nañoo bàyyi xel li ñu fi indi coono yiñ tegoo yépp ñu xam ne ñàkk moytandiku ndigalul borom bi subhaanahu wa taala moo ñu ko teg bëgg ñu fàttaliku loolu sax moo tax borom bi di yónni ay yonent alayhimu salaat moo tax mu yónni ay yonent ñuy ñëw di ñu ko fàttali di ñu ko fàttali di ñu di ñu wommat ci liy tax ñi nite di ñu wommat ci liy tax ñu dégg borom bi subhaanahu wa taala waaye di ñu suudeel ay diggante yoo xamante ni nii day am fu ñuy teg suñu tànk bi yonent yi demee alayhimu salaatu wassalaam lañ fi bàyyi woon ca njàngale ma ña koy jot li ñoo ñu taxaw seen mission mu mel ne doomu aadama bu ne war naa def yitte yi yuqamtiku ngir jege ji boroomam subhaanahu wa taala mbokk yi démb bi ma yëkkati jotaay bi maa ngi doon waxtaan ci mbaax ba doon jeexal aaya yi nga xam ne day wax ci baax jëme ci ñaari way jur borom bi subhaanahu wa taala wax ne maa ngi dénk nit ñaari wayjuram waaw dénk na nit ñaari wayjuram juram ne yaayam nag moo ko ëmb coona ci kaw coona waaw nga xam ne bi yàlla ne fonkal sa ñaari wayjur seppi ci waajur yi yaay tegtalewul ne bàyyi daa defut dara waaye waxinam la lii day loo mën a dut baaraam léegi léegi mu ne yaay moom dafa ëmb waaye ëmb ba nag moom nekk coona waaw ëmb ba nekk ay nekk diis diis waaw nekk diis diis yu baree bari am na lu mu daan bañ daanu ko lekk am na amaana sax mu ëmb ëmbe ak wéradi ak xiibon lu nekk xew waaw yóbbee nga ko sax euh, muy def loo xamante ne maanaam xëy suba dem ci hôpital ba tëdd ñu di ko seet ndax yow ndax bëgg nga ñëw rek ak bëgg nga ne ci jàmm jaral nag ko yàlla nee na sant ma te sant sa ñaari way jur te sant sa ñaari way jur jaaroon naa ci bi may waxtaanee fonk jur ak fi nga koy teg léeg boo déggee alxuraan di ko wax day dem ba mujj yàgg da nga naan jur moom maanaam ak topp kook déggal ko amut fu mu yem amut fu mu yem. day mujj yàgg nga gis koo xam ne déggin wi mu ciy am te firi luñ ko ko mën naa tax sax mu def naka su dut noonu loo xam ne neexut borom bi waaye jàpp ne daa sedd xoli way juram léeg-léeg itam way jur sañ-sañ yi ko yàlla jox mën na koo yóbbu ci muy tere loo xam ne yàlla da koo digle baa muy digle loo xam ne yàlla da koo tere teg ko ci bakkanam waaw teg ko ci bakkanam way jur ku ami sañ-sañ la waaye nag borom bi subxanahu wa taala nee na na bàyyi xel sañ-sañam yooyu te xam ne maa ngi ci kawam. na bàyyi xel sañ-sañam yooyu ba jiital ma ci lépp léeg-léeg nga gis jigéen ju toll ci sëy waajur wu góor bañ waajur wu góor bañ ndax sa digganteeg euh, ki koy bëgg si néexu la wala am na loo ci seetlu walla ni la ko sa doom yëgale sax néexu la léeg-léeg loolu lay doon xëy na ku góor ki amoo dara looy sikk ci moom amoo dara looy sikk ci moom waaye daal sa mbiri bopp la ñu ne la euh, ci sariya jigéen ju mësta sëy waaye juram moo ko sañ a maye wala ku mu jox ndigal nga lànk nag daal koy gàllankoor waaw daal di koy gàllankoor gàllankoor ko <laughs> gàllankoor ko ba nga xamante ne loola ay yéeg ka wàcc lay doon léeg-léeg mbir war naa toll foo xam ne ñaar ñëpp buñ jàkkaarloo luy eh, indi gàllankoor ci kenn ku nekk ci ñoom ñaar kenn ku nekk war na koo moytandiku nga xam ne waajur dana góorgóorlu ba du gàllankoor doom waaye doom it góorgóorlu ba du mooy waajuram moo indi foofu ak leeral mu ne wa in jaahadaaka ala an tushrika bi maa laysa laka bihi ilmun fala tutixumaa wa saaxibhumaa fi dunya maxruufa wattabi sabila man anaaba ilayya summa ilayya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum taamaluun borom bi nee na bu la say waajur eh, digalee loo xam ne amuñ ci xam loo xam ne amu ci xam-xam buñ la buñ buñ buñ la santee loo xam ne ak bokkaale la wutal ma ndend wala loo xam ne lu araam la ma araamal ko yàlla nee na bu leen ca topp bu leen ca topp waaye nag ngir eh, war ma ji nga leen war a jox na nga ànd ak ñoom ñaar ci àdduna àndin wu rafet na ngay jëfandikoo ñoom njekk er, nga ëpp leen information ak nga xam ne lii daa araam sant gi ma koy sant waruma koo def bu mu tax mukk nga nga déjjër leen ñoom ba wax leen baat ba mu doon teg ba mu ne la woon falaa taqul lahuma bu mu jib mukk waaye yàlla neen nag maay sa patron waajur waajur yi maay seen patron maay patron wu doom yi àq yi ñu sàmmoonte yépp bu àq yàlla teewee da koy buux waaye àqi waajur daa dugganteek àqi borom bi subhaanahu wa taala ci bëgg nga wormaal leen ak nga ànd ak ñoom ànd gu rafet am na feneen foo xam ne borom bi subhaanahu wa taala ñëwee na fa noonu ñëwee na fa noonu wa wassayna al insaana waaw wa wassayna al insaana bi walidayhi ixsaana allahu akbar damaa dénk euh, nit ay way juróom waaye damaa bëgg muy rafetal jëme ci ñoom dama bëgg muy rafetal jëme ci ñoom aaye ji ma jàngoon léegi wa wastaynal insaana bi waalidayhi rek la yàlla wax teg point daal di indi yaay dama dénk nit ay way juróom daan ne xamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaaluhu fi aamayni an li wa li walidayka ilayya almasir bii nag dafa wax wa wassayna al insaana bi walidayhi daan ne li mu la dénk mooy rafetal rafetal loo rafetal doyut loo rafetal nag mel ne ku naan la fàttalikul nag fàttalikul ne mënoo leen a fay fàttalikul ne mënoo fay say wayjur waaw fàttalikul loolu jëlal rek sa yaay waaw mel ne ku naan la xoolal rek sa yaay mii lim daj ci yow da nga koo fàtte daf la ëmboon waaw juróom-ñeenti weer yoo xam ne kurhan wa wadaatuhu wa wadaathu kurha waaw bee wëhnan ala wëhn bi kurhan wa wada wa wadaathu kurha wa xamluhu wa fisaaluhu salaasuuna shahra waaw nga xam ne fanweeri weer yoo xam ne sa yaay amul benn occupation bu dul yow xatta ida balaxa asuddahu wa balaxa arbaina sana yàlla nee na ñaan ma nag ñaan ma moo tax xéewal da caa bokk xéewaluk mën a sant yàlla ak xéewaluk mën a jëfal say wayjur nit bu dee daa am teraanga te teral ay wayjuram amul teraanga nit bu nee daa am teraanga te mënta teral ay mbokkam amul teraanga boo amee teraanga te ñi nga mën a teral mooy ñi lay tagg nañ ma baal wala ñi lay kañ wala ñi lay mbaxal yàpp di la wax lu du dëgg nga xam ne bu tagg wi ak si waatu doo defaat defe nga lu bari defe nga lu bari boo bàyyee xel sa borom subhanahu wa taala da nga ciy bàyyi xel bu baax a baax waxinu alquran wu ma yéem la rab bi aw nii rabbi awsi'ni rabbi awsi'ni yonent yàlla suleymaan dama koy faral di nettali lu bari keroog bi ko borom bi defalee xéewalug mu toog ca pale ba di waaja dem di takki dàllam yàlla defal ko déggug mu dégg la ndoom yi di waxtaane ca yoon wa fa mu war a jaar tukki xéewal gi ko yàlla defal ci mu euh, mën a dégg sabi picc yi xéewal gi ko yàlla defal ci lu mu xool loola mel ni mu bëgg daa mel ni dafa tiit am na fu mu ne yàlla daf may nattu daf may nattu li yeb lu wa nii rek lii lépp de nattu la waaw xéewal yi moom mu tudde ko nattu ne daf may nattu ba xam dama koy sant wala dama koy weddi waaw li ma yàlla defal boo demee di lijjanti dara daal di àgg rek jot ci ca saasa yonent yàlla Suleymaan daan ne yàlla daf may nattu moom bi mbir mi tegee ci kawam rek jàppewu koog noos ne laay sama affaire baax na dafa delloowaat lépp ci yàlla ne lii lépp moom la de xam naa sax li tax mu yombalale ma ko nii daf may nattu ba xam dama koy sant wala dama koy weddi daf may sant daf may nattu ba xam dama koy sant wala daf ma koy weddi fii nag borom bi subxanahu wa ngay ñaan ne ko. yenkiwal ma waaw yombalal ma ma mën a sant xéewal yi nga xam ne moom nga ma defal waaye ma mën a sant sama ñaari wayjur waaw xéewal yi nga ma defal ba ma doon nit xéewal yi nga ma defal ba ma amuk xàmmee xéewal yi nga ma defal ba ma jaar ci ñaari wayjur yoo xam ne xool naa leen bëgg ci ñoom ndax léeg-léeg nit xool ay wayjuram te du bëgg ci ñoom waaye sa yoon nekku ci nag waaw sa yoon nekku ci léeg-léeg waajur xool doom te du bëgg ci moom waaye moom nag am na ci tuuti bu xoolaatee ay jaar-jaaram ak moom waaw waaye waaye doom moom ni sa jur yi mel yow sa yoon nekku ci defoo ci benn choix pour juddoo ci ñoom mën naa am bi nga jundee ba am ñaar fukki at ak juróom jàpp ñeen fukki at ku la joxaatoon big ak fooy ne la bindal koo bëgg a doon mu doon sa baay ak koo bëgg doon mu doon sa yaay am na ñoo xam ne ki leen jur la ñuy bind waaw bëgguñoo doon keneen bëgguñoo doon yi keneen ku dut seen doomi baay wala seen doomi yaay waaye nit nag mën naa yaroo ñu yar ko ci yarin wu ni mu war a mel wala mu seetlu yu mu wërta seetlu wala mu am doxalin wu mu wërta doxal ba ba tey jii bu sañoon ki ko jur du ko jur keneen a koy jur waaye bu sañoon moom paa yi ci koñ bi beneen baay lay tànn bu dul baay bii am na it baay yoo xam ne euh, buñ sañoon duñ am doom ju mel noonu ndax doom ju baax ñëpp koy bëgg jur kon nag mën nga cee dégg ne way jur wu baax it ñëpp ay bëgg ñu jur leen waaw ñëpp ay bëgg ñu jur leen mbaax daala am solo yàlla nañu ko yàlla defal moo tax sant borom bi subhaanahu wa taala yim la defal waaye sant itam say way jur ba mën a jëf loo xam ne day bégloo yàlla bégloo say wayjur borom bi subhaanahu wa taala nee na ñi mel nii ñi mel nii ulaika alladina nataqabbalu anhum axsana maa amilu wa natajaawazu an sayyi'aatihim fi asxaabil janna wa'da sidqi alladi kaanu yuwaduun waaw ñi mel nii mooy ñi nga xamante ne borom bi day nangu dana nangu seen jëf yu rafet yii yépp lay nangu waaye jéggal leen seen bàkkaar ya jéggal leen seen bàkkaar yi seen ñaawteef yi ba noppi tàbbal leen ci aljanna ja nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala mu ngi ko dikk ñi nga xamante ne ñooy rafetalkat yi yal nañ ci bokk mbokk yi alxuraan joxoñ na ba tàyyi fonk way jur ak teral ko fonk way jur ak bàyyi ko xel fonk waay jur ci bi muy dund fonk jur ci bu génnee àdduna yàlla nañu yàlla xiir ci ñu man koo taxawee ca na mu gën a rafete bu ñu yàlla mayee ñu dund ba altine jàmm daa ñu ñëwaat ci beneen bind ci fonk jur ginnaaw bi ñu noppee ci aayaat yi ñu ñëw ci ahadis al waarida fii birril waalidayni insha allahu taala yal nañu yàlla may ñu dund ba booba weesu ko dig leen daje ëllëg jàmm ci fajar dimanche yi ci suñu waxtaan yi jëm ci wàllu ñaan ak yi nga xam ne moo ci aju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 seen mbokk si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaam